ak deuy nga xamante cas de transmission communautaire la waye nak ñaari bërëb yi ci gëna némé nemmeeku modi di euh, ak fële ci euh, Touba. waye nak dañ leen di fàttali ni que tey jii nii am na nag 48 yi nga xamante ne jot mucc ci euh, doomu jangoro ji waaye ba tey am na 6 cas grave yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ak li nga xamante moo di deux nouveaux décès yi nga xamante ne jot nañ ko enregistré fële nag diggante parcelle ak fi nga xamante moo di Pire. Dakar Ouest nag moom la ñu gën a nemmeeku ci li nga xamante ne moo di cas de coronavirus bi nag bu ñu xoolee ñoom nag jot nañoo battre record bi ndax ñoom ñoo ëppale li nga xamante ne moo di nombre de cas positifs ndax nag 342 euh, patients la ñu am ci li nga xamante ne moo di diggante euh, li nga xamante ne moo di euh, Yoff Ngor Wakam Ouest Foire Nord Foire ak Mermoz ak ni ñu mel loolu nag waral na ñi nga xamante ne ñoo yeewoo foofu noonu di amee jàkkaare ndax képp koo xamante ne jot nga am ci li nga xamante ne moo di doomu jàngoro ji foofu amul fu la yóbbu mu dul lu dul centre bi nga xamante ne moo di Philippe Maguilène Senghor sapeur pompier yi nga xamante ñoom tamit dañ leen a mujjoon déclaré positif ci li nga xamante ne moo di euh, Covid 19 bi ñoom nag bu ñu leen yóbbee fële ca Bambey ñoom nag askan wi ñoom ñaawlu nañ li nga xamante ne ñoom la nguur gi jël wala li nga xamante ne ñoo di autorité yi ndax ñoom lànk nañ bañ nañ leen ñooñu duñ leen faj fi nga xamante ne ñoo di seen béréb ndax jëlewuñu feebar bi feneen fu doo foo xamante ne moo di euh, Touba loolu nag tax na nag askanu Sénégal ci boppam ñoo ngi laajte ñi nga xamante ne ñoo di sapeur pompier bu ñu nekkee ab njàkkare ndax ñu askan wi waruñu leen dimbali

dara mayu leen ngir ñu euh, demaat euh, li nga xamante ne ñoo di seen i classes yi nañu des fële seen i kër. nee na moom ci boppam ndogal bi mu jël nag euh, du dara lu dul li nga xamante ne moytu risque comme maître comme professeurs yi wala enseignants yi ci boppam amee feebar yi nga xamante ne moo di ay jam diabète hypertension ak ni ñu mel ñoom nag seen jëm bopp maladie bi ñoom la gën a yépp loolu nag waral na moom ci boppam moo leen di artu ngir ñu des fi nga xamante ne ñoo di seen i kër Abdoulaye Diouf Sarr mom tamit mo ngi wéy ba ci ay stratégie nga xamantene bëgg na amal ngir fàcc li nga xamantene mo di euh, Covid 19 bi dem nak jot nañu rapatrier lu ton ci 150 euh, euh, sénégalais fi ci aéroport Diass mom moom nag comme que hôpitaux yi dafa fess ak ñi nga xamantene ñu mettre en quarantaine dañu bari lool lool nak waral na mom ci boppam mu yebal leen ñu dess fi nga xamantene ñoo di seen cœur mom nak dina leen yabal ak ñi nga xamantene ay services spéciaux lañu fële ci seen biir kër ngir ñu saytu leen. kii di Aly Ngouille Ndiaye ba tey ngi woy moom tamit ci ay euh, décision am ak ay ndogalam yi nga xamante ne jot na ko jël moom ci boppam tey jii nag mu ngi wax ci li nga xamante ne moo di ubbite jàkka yi ak li nga xamante ne moo di korite yi ndax démb jox nañ ko lu toll ci euh, mille masques yi nga xamante ne war na koo distribuer moom nag ba tey mu ngi woy di wax ne am na ay autorisation yoo xamante ne bëgg na koo jagleel askanu Sénégal. ndax naam am nañ ñi nga xamante ne bëgg nañoo war a ji fële ci seen i euh, dëkk naam bu ñu desoon fii nag moo ko doon gënal waaye bu fekkee ne dañoo bëgg a dem nag moom dina am autorisation yi nga xamante ne wax na leen ko mën a jagleel ndax ñu euh, mën a dem waaye loolu yëpp ak lu ci mënti am ñoom seen jëm bopp ñoo war a laaj ci autorisation yooyu ngir ñu mën leen ko baaxee. yéen suñu mbokk internet yi fii la ñuy ndax képp ak yéen suñu ëttu xibaar di leen jokk jox dig daje euh, altine incha allah ci même ak ci même chaîne comme ni ñuy defee sa su ne mën ngeen a woy di xibaaru ci seen site bi nga xamante ne day affiché wu foofu ci seen bas de l'écran di www.senflash.com